Ahmadou Ndoumbé ana ku sopp xabaar sëriñ bi nee màggal gi waaju ko màggal am palaas ca ga mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides ci ndigalu sëriñ Cheikh Jëmbu Fall xalif général des Baye Fall ci kilifteefu sëriñ Ibra Xuja Mbàkke xalif sëriñ Mandumbe ñooy am bégte baax di leen yëgal màggal gi nga xam ne nag baaxoo nañu ko amal muy màggalu Sam Kontor ñu ko dinañu amal njàngu xasaayid waaye buñ ca noppee ñu daal dem ci bernde yi dina am tamit waxtaan bu am solo boo xam ne ki koy amal muy Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne moom la amal vendredi muy taxawaay bu ràññee boobee nga xam ne am nañ ko ci màggal gi nga xam ne moom la màggalu Sam ak di ci woo dëkk yi nga xam ne nag ñoo wër Sam fu ci mel ni Dindey ak fi nga xam ne nag moo di Xuru Mbacke ak Daaru Njaay waaye nag fàttiwu ñi nga maar fàttewuñu leen fàttewuñu gàtt fàttewuñu tamit waa jawal di ak mbooleem tund yi nga xam ne nag ñoo wër dëkk boobee ñu leen di woo màggal gi nga xam ne at mu jot la koy amal fi nga xam ne la ka moo di Sam Kontor ñu ràññee ci taxawaayu waa ñangeen famille kon boog bés baa ngoog àjjuma lay doon ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin 2019 ca Sam Kontor ki woo nag mbooleem jullit yi ak mbooleem taalibe yi waa déen ay di wax ne